asalaamaaleykum Nema TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen seen d'information nga tàmbali xibaar yi ak euh, parti Pastef bu xamante ni euh, am nañu désormais plan B seen plan B mu nga tudd Bassirou Diomaye fay ginnaaw bu ko Ousmane Sonko tànnee pour mu giite leen ci élection présidentielle bu vingt cinq février deux mille vingt quatre au départ nag ki xamante ni moom moo di euh, le parti Pastef ak ay responsable ay responsable parti boobu lee nag dañoo manko woon ànd. doon booloo doon benn ngir Ousmane Sonko mu nekk candidat waaye nag ginaaw bu ñu euh, gisee ni nguur Macky Sall gul benn yoon euh, jàkkaarloo ak kii di Ousmane Sonko ci élection yi jamono jooju nag jamono ju xamante ni kii di Ousmane Sonko jotagul ay fiches de parrainage am ndax ay euh, procès yu dul jeex parti Pastef les patriotes nag tànn nañu kii di Bassirou Diomaye Faye pour mu nekk seen i candidat waaye nag Bassirou Diomaye Faye ba mu nag depuis avril 2023 mu ngi ci kaso bu Cap waaye nag li tax waa parti Pastef nag tànn ñu ko tànn kii di Bassirou Diomaye Faye jamono ji xamante ne mu ngoon kaso nag loolu mooy laaj boo xamante ni ñëpp jamono ji ñu ngi koy waxtaane lan moo justifier seeni euh, choix bi waaye nag cappandaw ga bu ñu ki jëlee nga xamante ni moom moo di ay fiches de parrainage kii di Guy Marius Sagna jëloon na fiche de parrainage pour mu nekk euh, les candidats euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a jongante ci élection présidentielle bu 2024 Guy Marius Sagna kii di Biram

ñëw ñu ki xamante ni moom moo di la candidature de Ousmane Sonko ginnaaw ba léegi nag puisque Cour suprême nee na na loo xamante ni moom moo di la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor bu ñu bu Sabassi eh, Faye jëloon ci 12 octobre 2023 waaye nag ba léegi ñoom pare nañu pour eh, supporter la candidature de Ousmane Sonko am nañu pexe pour jaarale ko bu xamante ni moom moo di eh, le parrainage des députés kon ba léegi nag Ousmane Sonko bu ñu ci communiqué bu ñu génnee nag ba léegi mu ngi tamit si seen plan plan yi waaye nag comme xamaguñu fan la ñu war a jëm ak ki xamante ne moom moo di lu nguuru Macky Sall bu xamante ni ñemewul euh, bu wala paregul pour jàmmaarloo Ousmane Sonko ci élection présidentielle bii de kon ñoom loolu moo tax ñu jël loo xamante ni gànnaayoo la candidature de Bassirou Diomaye Faye alors Cour suprême nag moom tamit buñ ginnaaw bu Cour suprême nee na lee la décision de Sabassi Faye bu tribunal d'instance de Ziguinchor euh, cassé décision le parce que Sabassi Faye 12 octobre mu ngi jël décision pour ñu réintégrer Ousmane Sonko ci fichier électoral ba pare ñu jokkaa fiche de parrainage am ak clé USB lépp loo xamante ni dafa ànd ak parrainage waaye nag décision boobu noonu amatul parce que Cour suprême cassé na ko ba pare mu annulé ko renvoie l'affaire devant le palais de justice le tribunal d'instance hors classe de Dakar donc euh, foofu moo war a attewaat euh, loo xamante moom moo di dossier waaye nag waxuguñu dossier délai exact boo xamante ni le d'instance de Dakar war nañ ko mën a statuer waaye nag laata loolu Ousmane Sonko war na delluwaat foo xamante ni moom moo di cour suprême pour appel boo xamante ni defoon ci dossier bu euh, de diffamation boo xamante ni dox diggantam ak Mame Mbaye te dossier jëloon mooy condamné Ousmane Sonko avec euh, six mois d'emprisonnement la woon non six mois avec sursis la woon waaye nag beneen juge bi ginnaaw bu parquet bi def euh, appel kii di Mame Mbaye Niang tamit def appel yokk nañ famate moom moo di peine boobu noonu ñi daane daane Ousmane Sonko avec six mois plus de cinquante million bu may juumalee de francais CFA d'amende donc euh, dommages et ba Ousmane Sonko taxaw nee na deux cent millions deux cent millions de dommages et intérêts ba Ousmane Sonko nee na fukk dërëm du ko jox kii di Mame Mbaye Niang waaye nag euh, jamono jooju nag comme euh, waa parti Pastef ak ñu mu àndaloon yëpp euh, def ko benn défi waaye nag jamono ji jeudi jeudi le 23 la ñu war a jugé waat boobu le dossier ci devant la Cour suprême ndax Ousmane Sonko foofu tamit dina fa amaat ndam waaye la nañ nee naa lan ay ay effort am nag lii tax na moom parti Pastef les patriotes ñu daal di jël décision désigner kii di Bassirou Diomaye Faye pour mu nekk seeni candidat pour que en ñu mu nekk seen plan B ñu waajal loo xamante ne moom moo di élection présidentielle du 25 février 2024 avec objectif de 1 million de parrainage boo xamante ne lancé nañ ko dès ce soir aujourd'hui ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax.